yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Sonko borom soppi système mujj naa soppi système am ubbi l'observateur njiital parti Pastef gi ne woon du wuy ji juge bi bu huitième cabinet bi ko convoqué woon tey ji wax na démb ne dana wuy ji finalement yéen bi nañu ab déclaration la def démb ci guddi fala waxee ne dina wuy ji fa la waxee li tax mu nar a wuy ji nee na ay awokaam ñoo ko ne mu dem wuy jéeg mu bañ a dem wuy ji résultat bi benn lay doon te it mënuñoo taxaw naan ñoo ngi koy ñàkkante ak police wala gendarmerie bu lëmm ba l'armée bu lëmm Ousmane ci ne wuy ji juge bi tekkiwul dañoo dellu gannaaw baa bokke xeex bi dafa jeex xeex bi tàmbaleegul sax mu ne xeex la bopp lu ne mën nañ ko caa ñàkk waaye Macky Sall moom it mën na caa doxee ñàkk nguuram gi Ousmane Sonko ne suñu ma convoqué wuy juuma mandat dama nañu fekk résistance mu ne su ma résisté sax askan wi ñoom danañu résister li koy firndeel mu ne mooy keroog juróom-ñetti fan ci weeru février bi ma leen woowee ngir ñu génn jàppale ma ñun ñëpp gis nañu ne yëf ya demee soit nañu Ousmane Sonko mu wex xàtt boole ko bi journal bi di Source A wax nañu ko député yee ci assemblée nationale te fare ci kujje politique gi ak ña ca languk non inscrit ci fukki député ak juróom-ñaar yéenekaay bi nee nañu saisir nañu conseil constitutionnel ngir ñu annuler levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ndax nee nañu ni ñu ko defee jaarul ci yoon yéenekaay bi dolli ñu ci ne kii di Ousmane Sonko benn tànkam ma ca cité kër góor gi beneen tànkam bi ci des ma nga ca kaso bu rëbës Sud Quotidien nañu Ousmane Sonko dana jano ji ak juge bi tey ji na les économies ndax yàlla Ousmane Sonko nangu di bañ mu dal ko dem di ko jëli ba far fa génnee ab néew Vox Populi nañu doxin wu ñàkk Pastef gi njiital Pastef gi doxe ne duma dem ba mu yàgg mu ne dinaa dem leeral na démb li ko tax a nangoo dem nee na ay kilifa diine ay avocat ñu fare ci société civile gi ba ci waa ak waa këram di ay mbokki boppam ñoo ko ne ne dem wuy ji justice bi le témoigne nañu nee na ab sëriñam moo ko jox ndigalal wuy ji ay awakaam xelal ko mu dem wuy ji ay kilifa yu fare ci société civile géeg ci opposition bi ñaax ko ngir mu dem wuy ji latir bi nañu jël na dogalub dem wuy ji zis bi waaye bu ñu moytuwul dana toog ca bureau zis ba ba jóg du fa ne mbuu baa mu ne fa mbaa libération mel ne ku naan ak lu ci mën di xew àllarbay tey ji àllarba la ju nar a bari jalti-jalti ndax muy Ousmane Sonko di Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon Sweet Beauté ba coow la amee woon ñoo ñaar ñëpp war nañoo janoo ak zis bi tey ci xët mu njëkk enquête dina kay mu fay wéy di xaati goññe li xew yépp complot la bu ñu def te Macky moo nekk ci ginnaaw saka nocc ngir bëgg koo sànk te jubluwu ci dara lu dul bëgg rajo turu Ousmane Sonko ci liste électorale yi Vox Populi nañu moom Ousmane Sonko yamu ca ne démb dem na bay wax ne xale bu jigéen bi waral coow li di Adji am na ab témoigné bu wax ne président Macky Sall recevoir na Adji Sarr cib audience Vox Populi nañu waaye témoignage yooyee nga xam ne ki ko def mi ngi ko def cib live bu journaliste bi di Pape Alé Niang doon def ndawi APR yi di waa COJER yi weddi nañu ko ba mu biir Vox Populi nit ku mën a sos nit ku naafiqe ne Ousmane Sonko ba léegi ñoo ngi koy soog gis ci politique bi Moussa Sow coordonnateur ko gère ne Macky Sall xamul Adji Sarr ci aadama xamu ko ci awa bu dee am na ko xam Adji Sarr ba ñëpp xam ko moom Ousmane Sonko la moom Ousmane Sonko moom la ñuy tuumaal ne moo xam Adji Sarr biir ak biti www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel suivez-nous sur YouTube Facebook et Instagram téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play le roi de l'information en temps réel.